Sénéinfo International. Sénéinfo International Sénéinfo point net euh, bonjour daleen ak jàmm si li gën a fës si xibaar yi vendredi 1er euh, décembre 2023. Sud Quotidien ñu ne démarrage de la campagne euh, de commercialisation de la l'arachide démb nag commencé démb si jeudi bi ñu ne encore en mauvais départ loolu la journal bi xam ne université Cheikh Anta Diop de Dakar ak yeneen université yi ñoom ñoo xam ne ñoom nekk si Sénégal. ñu ne journée université morte et marche à l'UCAD et à l'UGB pour la reprise des cours euh, en présentiel bi nga xam ne moom mooy SAES mooy syndicat bi nee na dafa bëgg ñu euh, maintenir le cap pour ñu mën a reprendre les cours les cours en présentiel donc loolu xam ne ñu ñëw war ci Walf Quotidien Walf Quotidien dafa ñëw si aide à la presse nee na euh, Moussa Bocar Thiam asphyxié Walf donc ki nga xam ne moom mooy Moussa Bocar Thiam. donc euh, ministre bi nee na il refuse de les cinquante millions de francs du groupe donc euh, le ministre euh, foule au pied les instructions de la hiérarchie donc état la presse bi nga xamante ne Walfadjri war na ko jot donc ki nga xamante ne moom mooy ministre Omar Bocar Thiam nee na joxu ko ko donc loolu la journal bi xëy fësal à sa une mu ñëw rek ci transparence des élections gros nuage sur la présidentielle la CDC rejette le chèque de Ousmane Sonko. donc euh, Walfadjri Walf Quotidien loolu la xamal donc asaayu ñu ñëw si les échos les échos moom nee na euh, opposition et pouvoir donc li nga xamante ne moom mooy vote euh, ministre budget ministère yi démb la jeex fi nga xamante ne moom mooy assemblée nationale donc opposition bi ak pouvoir bi ñoom dañoo d'accord ci li nga xamante ne budget bi nga nañ ko foofu ak ministre bi ministre de ministre du budget muy Moustapha Ba donc nee Euh, Abo Mbacké Thiam moom la nekk moom nee na si élu on souhaite que vous ministre des finances euh, ki nga xam ne moom mooy Nafisatou Diallo nee na vous avez beaucoup de corrections et portez à bout de de bras le gouvernement de Macky Sall donc les témoignages élogieux de Birame Souleye Diop Adji Mbergane Kanouté Nicolas Ndiaye Lamine Thiam donc euh, député yi ñoom vraiment dañoo tenir ay propos élogieux à l'encontre du ministre du budget nga xam ne moom mooy Moustapha Ah, ba donc euh, loolu la journal bi tey fësal tey à sa une ñu ñëw rek euh, si présidentielle 2024 ñu ne après la DGE la CDC bloque euh, Ousmane Sonko ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko loolu la xibaar yu bari tey xamle donc le chèque de 30 millions de francs fa déposé par son mandataire a été rejeté par la banque des candidats donc si journal bi rek ah Bouda Mboup mu ngi xam ne ne seul conseil constitutionnel est habilité à vérifier la recevabilité et la validité des pièces et mentions qui composent le dossier de la déclaration de candidature. Le quotidien moom nee le budget l'État a des subventions le quotidien ñëw xamle nee na plus de 602 milliards accordés à plusieurs secteurs 100 milliards euh, pour les intrants milliards pour les terres milliards pour la DDD euh, pour Dakar Dem Dikk euh, milliards pour les insuffisants rénaux donc loolu la journal bi ñoo fesal tey à sa une ñu ñëwaat euh, bi nga xamante ne Ousmane Sonko euh, déposé nañ ko démb pour Ousmane Sonko mu ne la CDC retourne à Sonko oh, son chèque donc loolu la journal bi daal euh, ñëw xamal xamal tey tey à une donc lii leen indi loon si lu gën a fës si xibaar yi tey vendredi premier décembre deux mille vingt trois ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. Info International.